di waat kàddu ci ndigalal sëriñ bi di wax ni ginnaaw bi nu ñëwee ci kër gi tàbb si ci sëriñ bi dalal nu ñu àndandoo moom dem fi nga xam ne macha allah mooy jumaa ji julli ji la nga xam ne mooy ndigal li ñu dem julli ji ba ñëw bi ñu paree ñu dem ci réew du tedd gi maam Amary Ndaak Seck ngir dañ doon tabax li nga xam ni macha allah mooy musée bi tey nag moo nekkoon li nga xam ni moom lañ doon ubbi barabam bi boobu nga xam ne macha allah liggéey bi liggéey nañ ko commencé woon ñaanoon yàlla commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim waaye mu àggoon ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu doon jébbale tey jii caabi ci taxawaayu imam ak njaboot gi ak famille bi yëpp waaye ci teewaayu président moom la Lamine Diallo vice président assemblée national waaye ak délégation bi mu àndal yëpp di waa tekki ci kanamu imam bi macha allah léegi nag ndigal li mooy ñu jox kàddu gi ki nga xam ni mooy président Mamadou Lamine Diallo gannaaw bi ko sëriñ bi dalalee tatagal ko yendoog moom ñu sottantey xalaat waxtaan kon mbokk yi dañuy jox kàddu gi président moom la mu jàllo waaye mu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen wax baatu asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. nee na mu ngi nuyu ñëpp comme ni ma ko waxee. Ah, nee na di jiital ci nuyoo bi. suñu xalifa général. Serigne canaba nee na di jël nuyoo bi nag di ko teg ci sunu loxo imaam Cheikh Ahmadou Seck muy suñu imaam waaye di sunu sëriñ di suñu xarit di suñu soppe nee na bu ñu ñëwee fii ci Canaba suñu xel dafay dal nee na suñu xol tamit dafay sedd nee na loolu la yàlla dogal nee na tey nag muy nag bës bu màgg ci ñun nee na nag ñu ngi nii di dugg ci gàmmu gi nee na ñu fas yéene woon ñëw fii ci ba ziyaare sunu imaam suñu xarit nee na loolu lan fas yéene woon nee na bi nu agsee nee na tawféex ak taysiir bi nu yàlla defal ñu ñëpp teg nañ ci bët nu fekkee ñuy jël caabi yi tey jii bu xabru mam Amari Ndaak sekk nga xam ne moom lañ doon liggéey ba doon jëbale tey jii caabi yi nee na tawféex boobu la nu yàlla defal nu fekke ko moo tax njabootu imam bi yëpp njabootu xalifa général bi yëpp nee na ñoom ñëpp ku fi teew tey ku fi teewul it ñoom ñëpp wax nan ni ñun dañoo am chance macha allah loolu la yàlla dogal nee na loolu nag chance boobu bu nu ko yàlla mayee nee na yàlla daf ko jaarale ci jëmmi imam bu tedd bii macha allah nee na imaam mu nekk sunu xarit nekk tamit sunu soppe nee na imaam moo wax ni wóolu nanu ñun nee na loolu nee na loolu lu rëy la ci ñun waa tekki yëpp xam nañ loolu xam nañ ni imaam sunu imaam la sunu sëriñ la mu ngi nuy bàyyi xel mu ngi nuy ñaanal suba ak ngoon zahir ak batin nee na loolu tamit nee na def na ni ñun ñii ñu bëgg ko rek nee na imaam léegi jàngal nañu dara moo ngi koy bamtuwaat mu ne sëriñ war na dépassé nekk sëriñ war na dépassé nekk sëriñ nekk géej walla géej wala dex nee na léegi nii rek moom la ki nga xam mooy imam bi wax léegi macha allah ndax dex gi nee na ñëpp ci bëgg a naan ku ci naanul it sa morom dana ñëw naan ci nee na ko nag imaam nekk loolu ba pare macha allah nekk na loolu yàlla na yàgg te wér ñaareel bi nee na ñaareel bi nee nañu nee nañu ah, moom imaam moom imaam soo bëggee sëriñ bi soo bëggee sëriñ bi muy dëgg ci yow te muy dëgg ci yow xamal ne xamal ni boobaa su boobaa yàlla ci boppam yàlla ci boppam moo lay jàppaleel boppam imaam bee ko wax léegi sëriñ bi di ci dellu nee na kon nag chance boobu moom la nu yàlla defal nee na nag te loolu nag mu ngi jaar ci imam bii ñun amuñu sa pay ñu ngi lay ñaanal yàlla wér ak wérle nee na nag nga continuer sa liggéey àggale ko ci bànneex nga liggéeyal nag Serigne Thiénaba di ko ñaanal ah, nee na sa wajur wu tedd bi Serigne Ibrahima la mu am yàlla defal la ko ñun ñii ñëpp moom lan lay ñaanal saa bu nu wéetee di waxtaan ak maître Amadou Dieng loolu la ñuy wax nee na bu loolu weesoo ñun fii bërëbu ñaan la ñëpp nag xam nañ loolu nee na daanaka sax war nañ koo gën a xam nee na dafay faral di def ay émission moom euh, dinay wax ni euh, xale yi sénégalais yi africains yi war nañ leen a gën a jàngal seen histoire ndax la fi xew fii ci Sénégal muy xeexu Samba Sadio nee na moom mii ah, sunu maam ju tedd ji taxawaayam sànq junj na ko nee na la fa xew loolu ñun ñëpp ñoo ko war a xam muy taarix boo xam ni war nañ ko jàngal xale yi nee na loolu gëm na ko moom te war nañ ci liggéey nee na dégg na am na ci sët yi ñu ciy liggéey war cee bind téere ñu leen di ñaanal yàlla ñu agale loolu ci jàmm defar ko ba mu baax njaboot gi yëpp kontaan kilifa yëpp kontaan ñu mën ko tasaare xale yi mën cee jariñu nee na ñun suñu waajur moom dafa bëggoon nee na loolu musu wax sëriñ bi nee na moom mii fa mu jànge fédère bu jànge fa muy polytechnique bu Paris Faidherbe bu mu ngi woon ci xeexu Samba Sadio sunu baay baay Adama Diallo ancien député maire bu Sédhiou dafa bëggoon fu Faidherbe bu jàngee mu am ci ay doomam wala ay sëtam ñu fa dem jànge xam ñoom Faidherbe bu li ñu xam yàlla ah, nangu ñaan boobu may ko moom mii di président moom Lamine Diallo moom mu dem jànge ji polytechnique bu Paris nee na mu xam nag la tubaab yi war a xam yëpp xam seeni doxalin xam seeni mébét yàlla dimbalinu sunu diine foyewuñ ko macha allah yàlla tamit dimbalinu ca loolu nee na mu ngi ko jëlee ci yaayam ju baax ja mam Mariama Ja nee na mu ngi wax ci politique mu ngi doon waaj a dugg ci politique mu seetsi ko mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma loolu la commencé parce que bu ko waxee dama dugg ci politique attan na ni ko d'accordul ma ne ko ñaanal ma d'abord mu ñaanal ko mu ni damaa fas yéene dugg ci politique noonu la ko forcé nee na mu jàpp rek ni nattu yàlla la nattu yàlla la. Euh, soxna si ne ma nee na soxna si ni ko. Ah, mën ngaa dugg ci politique. mën ngaa waaye lenn daal. bëgguma ku ko dégg. sa làmmiñ wax ju ñagas. nga jëmee ko ci sëriñ si ci imaam yi ndax ñun imaam yi rek la ñoom ak sëriñ si loolu nee na loolu la ko yaayam di fàttali mu ni ko ma di la fàttali ndax ñun suñ ne tàkk ni imaam suñ ne ngente imaam su dee dëj ñi sang néew imaam euh, denc néew jébal ko boromam imaam ñaanal néew imaam kon ñun imaam lañu am loolu lañu am bul fàtte lool dénkaan boom solo euh, nee na loolu moo waral yàlla nag booba ba léegi mu ngi ñu ci dimbali bu baax a baax bu ñu yëkkatee suñu kàddu muy man muy waa tekki bu mën a doon ak fu mën a ne yàlla na nañu ba du ñuy wax wax joo xam ni imaam yi mën nañoo mere mën nañoo jëppi nee na temps yële yàlla yàlla ci boppam moo ko womat yóbbu ko mu fekke lu ñuy wax commission des lois foofu ci assemblée nationale gouvernement bi dafa fas yéene woon jàllale benn projet de loi dégg ngeen ko bu ñu doon wax dañoo bëgg a criminaliser sàkku jigéen ah, euh, buñ ko yóbboo foofu daanaka ñëpp àndoon nañ ci parce que ñemewul kenn ñemewul taxaw wax ne àndoo ci ah, nee na bés boobu nag dama toog nii këram dafa mel ni am lu ko jógal demal assemblée nationale nga fekkee réunion commission des lois boobu noonu nee na moom boobu bokkul ci commission des loi soo bokkulee ci commission. boo bokkulee ci commission. mën nga ñëw fekkee mën nga ñëw fekkee. mën nga wax mën nga wax. mais amuloo droit mais amuloo droit. nga voté nga voté. bu ñëwee. nee bi mu ñëwee. Euh, suñu benn collègue. benn collègue am. ku ñuy wax Aliou Souare waa Tëngéej. ku ñuy wax Aliou Souare waa Tëngéej la. Ah, ah, euh, nee na maamam im ay sëriñ lañ foofu. ci Tëngéej. mu ñëw. mu ne ko président. est-ce que jàng lii bu baax baax muy teg si mu ne ko jàngoon naa ko mu ne xaaral ma xool ko nee na mu xool ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon man ni ah, ko effectivement am na lu xew ah, y'a problème nee na ñoom ñaar moog Alioune Souaré nu xoolante ñu bind ci tubaab ci projet de loi bi euh, criminalisation criminalisation du viol, du des femmes, des femmes ainsi, que ainsi que, des actes, des actes contre nature, contre nature à l'encontre des mineurs. Des mineurs. nee na boo ko jàngee doo ci gis problème ndax doo ci bàyyi xel da nga ni ah, c'est normal waaye boo ko xoolee ba ci biir xoolaat ko bu baax di nga xam ni am na ndëgg sërëx parce que ci français soo bindee acte contre nature xel yëpp day dem ci homosexualité nee na loolu à l'encontre des mineurs waaye ci français mais bu nekkee ay majeur la nag loolu y a pas problème <laughs> nee na loolu ndëgg sërëx la gum gun laloon bëgg ko faa jaarale déedéet polytechnique bu Paris nga génne jaaxalul lool jaaxalul la. bés boobu loolu la yàlla def. nee na bés boobu loolu la yàlla dogal. ministre bi ñëw. ministre bi ñëw. mu di ko ko laaj. mu ko ko laaj. ne ko lii la mu tekki. ma ne ko lii lu mu tekki. muy wax seen wax yooyu. muy da wax nax waxi naqa saxandal. muy tourner autour du pot. tourner autour du pot. mu jëlaat parole bi. mu jëlaat parole bi. ma ne ko lii. ma ne ko lii. lii la tekki. maa ngi lay yëgal ni du fi amee. su ma fi jógee léegi. ñëpp a koy yëg. mu xamal leen loolu. ñu paniqué ñoom ñëpp. taxaw laaj laaj suspension de séance toog benn waxtu waxtaan seen biir nen na daal téléphoné seen kilifa waxante seen biir dellu siwaat ni ko génne nañ ko ci la ilaha illallah ak sant ak malt nee na loolu moo andi affaire u sàmm jikko yi parce que dafa ko bind nee na page Facebook am laa bind lu ma wax nii. moom la bind lii nga xam ne moom la doon netti li léegi. mu bind ko nee na waa sàmm jikko yi. ñëw seet si ko laaj ko mu expliqué leen jox leen document yi li leen xool leen ngeen xoolal seen bopp ngeen am nag seen propre opinion ban ko jàngee dellu si ni dañoo bëgg vraiment criminaliser homosexualité ndax yow ndax yow di nga nangu porté projet bi nga ni ko mënu ko boo ngeen ma ko joxee ma porté ko waaye li ma leen ni ñaan pour mu gën a am doole na nañu seeti nag xalifa généraux yi seeti imam yi seeti église bi sax jàngu bi seeti parti politique yi seeti nag association des imams et des oulémas nee na ñoom loolu lañ def ñu liggéey muy liggéey bu am solo seeti ñëpp dellu si na ah. ko ah ñëpp ànd nañ ci alhamdulilah ñu jublu bind euh, proposition de loi nu commencé di ko bind jox ko borom xam-xam en droit mu defar ko ba mu baax bi ñu paree ñu jox ko ko ma ne waa léegi nañ laaj nag samay collègue député ndax am na ñenn ñoo xam ni dina nangu porté ko ak man nee na ñu bari dellu gannaaw man leen man damay avancé nee na mu ànd ceeg nag honorable soirée bu Tëngéej ak Cheikh Bamba Dieye menn nee na nag moom ay benn benn député yu ci bokk ñoom soxna Astou Mbacké ñoom ñëpp ànd ak ñun ñu yóbbu foofu assemblée nationale nee na Moustapha Niasse nee na moom du ko laal parce que président de la république wax na ni wax na ci ba pare ma ne ko loolu président bi la engagé mais ñun loi yi ñoo koy voté ca sunu règlement intérieur euh, euh, daf la obligation nga jël ko jébbal ko député yi député yi nag ñooy xam ñoom ànd nañ ci wala ànd nu ci mu ne du ko def ma ne waa baax na ma dem nag conseil constitutionnel mu atte ñu ñor ak Moustapha Niass conseil constitutionnel nee na yoonam newu ci nee na mbir mi nag maa ngi lay wax ni la foofu la toll imam yàlla mi kenn tëwut ah, nee na élection yii mujj sëñ bi ñaanal bi yow ñaanal nga nu ah, mu liggéey ci lu am solo ah, rabb ngir opposition bi mën a juboo def wenn say <laughs> ñu liggéey guddi ak bëccëg loolu moo tax mu gëj fi ndax liggéey bi dafa metti xam ngeen politicien ni mel seen i calcul dafa bëri ñu nekk ci ci liggéey ba finalement yàlla jàppale nu ñu mën a juboo à la dernière minute defar suñuy liste gis ngeen ni élection yi mujje finalement fu ñu toll nii mën nañ ni match nul la ñun nag majorité bi ci avant ah, majorité bi mën nañ ni ñoo ngi am 80 yéen ngeen am 20 loolu la yàlla defoon loolu la yàlla defoon mais léegi. 50 50 la 50 50 foo lañ toll. kon suñu proposition de loi. suñu imam ñaanalee. ak Serigne Thiénaba. ak Serigne si yëpp. ak xalifa yëpp ban ko fa jébal yaakaar naa ni président assemblée nationale bi bu ñu tontu du ñu tontu lu mu Moustapha Niass tontu woon ndax léegi rapport de force bi changé na <laughs> ah, nee na loolu daal la bëggoon na seedeel ki nga xam ne mooy imam bi macha allah nee na yow xam nga li nu bëgg ah, mën nañ koo baamtu ndax xam nañ ni mën nañ ko dañoo bëgg ci barke sëriñ bi ci barke sëriñ Thiénaba ci barke maam Amari Ndak Seck bii nu doon ziare léegi ci barke yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi borom guddi gi ñu teg nag réewum senegal ci sunu loxo waaye yàlla na ko yàlla def nee na ñu teg ko ci code teg ko ci raay ndax nag dafa mel ni. suñ dee Sénégal train la. suñ dee Sénégal train la. mu ànd ak locomotive. mu ànd ak locomotive. locomotive mooy xëcc mooy xëcc wagon yi. locomotive nag mooy xëcc wagon yi. dafa mel ni dafa mel ni. locomotive bi locomotive bi. génn raay bi génn raay bi. da daraaye na bu yàgg nee na bi mu génnee raay bi. yàgg na de yàgg na. mën nañ wax sax mën nañ wax ni. bu tubaab bi bu tubaab bi. colonisé colonisé Sénégal. fa la tàmbalee fa mais jot na waaye jot na. jot na. jot na jot na. comme nag comme tey. comme tey. naka la ñuy dundaleewaat. naka la ñuy dundaleewaat. naka la ñuy dundaleewaat tey tey tey. naka la ñuy dundaleewaat tey tey tey. xabru xabru. suñu maam Amari Ndaak sekk mu tedd mi. jot na jot na. Sénégal ci boppam Sénégal ci boppam. ñu jël locomotive bi. tegaat ko ci raay bi. fa lañ toll tey. nee na nag ndax. jikko yi. ñu ngi commencé bëgg a yàqu commencé di bëgg a yàqu te faw nu jóg ci ah, ah, nee na mag ñi ñu ngi nuy xool responsabilité boobu responsabilité boobu sunu loxo la tege nee na ñoom li ñu doon def li ñu waroon def def nañ ko teg nañ ñu ci yoon jàngal nañ ñu tette nañ ñu bàyyi nañ ñu tamit ñuy continuer def loolu muy sunu imaam yu baax yi di ci des nag mooy ñu am fit nag xam ne àdduna kenn moomu ko yàllaa ko moom yàllaa ko moom yàlla joxu ko tubaab bi la ilaha illallah la ilaha illallah nee na kenn waru leen a ragal kenn waru leen a ragal al amin radiallahu taala anu nee na dafa am lu ko jaaxaloon lool muy lu tax tubaab bi gañe du man sax maa ko njëkk a wax. nee na du moom moo ko njëkk a wax. ndax euh, Cheikh Amidou Kane. ndax Cheikh Amidou Kane. ci l'aventure ambiguë. ci l'aventure ambiguë. moo nga ko fa doon wax. boobu période boobu ma nekkee xale. nee na période boobu mu ngi gënoon nekk tu tànk. affaire boobu dafa mos a jaaxal. nee na loolu daf koo mos a jaaxal. bés mu am sañ-sañ. mu am sañ-sañ. laaj ko nag al amin radiyallahu taala mm-hmm. mu ne ko. Serigne Babacar Serigne Babacar si. radiyallahu taala anhu. moo ko doon wax wala. moo ko doon wax wala. El Hadj Malick Cheikh Seydil Hadji yàlla dafa bëggoon ne ko yàlla dafa bëggoon. boole ñoog tubaab bi. boole ñoog tubaab bi. nu gën a xam at nu gën a xam at yi. addina addina. loolu moo waral. nee na loolu moo waral. yàlla yàlla. jaarale ko foofu jaarale ko foofu. nangu nangu. tubaab yi tubaab yi. gañe ñu gañe ñu. ndax nee ndax. ñun. nu mën a nangu nu mën a nangu dem gën a xam àdduna xam-xam bu tubaab bi am nee na xam bu tubaab bi am te mi sax ci biir alxuraan ne loolu na loolu mu ngi ci alxuraan xam-xam boobu xam-xam boobu ñu jëli ko ñun tamit ñu xam ko toll nañ foofu xeetu xam-xam xeetu xam-xam bu tubaab bi mën a am bu tubaab bi mën a am di nga gis sénégalais di nga gis sénégalais muy góor jigéen wala jigéen wala jigéen boo xam ne am na ko nee na complexe amatu fi su amoon tamit war na jeex léegi lu ci des ñu gën a gëm suñu bopp wóolu nag suñu askan imaam yi nooy wax bëgg sa réew dafa bokk ci gëm yàlla nan ci góorgóorlu suñu defee loolu incha allah nee na xaaru minutes <laughs> léegi la koy wax. incha allah incha allah. yàlla ci barke imam bi. nee na incha allah bi imam doon wax léegi nee na du xaar ba 30 minutes léegi lay wax ni incha allah ci barke imam. yàlla mën na jël réew mi. teg ko suñu loxo ñu nekk président de la république en 2024 waaye yàlla ko yàlla def waay amin incha allah loolu lañ bëgg nu wax ko mu leer nañ fii fii ci Thiénaba fii ci dëkku Serigne Thiénaba ñu mën a jël Sénégal teg ko ci kot teg ko ci ray nee na loolu la bëggoon wax di gërëm ñëpp sant ñëpp sant njaboot gi nag di leen ndokkeel ci tabaarakallahu liggéey bu rafet bi lii nu def tey yàlla may ñu nu fekke ko muy lu rëy ci dëkk bi ci Sénégal ci lislaam ndax bés dana am yàggul seen histoire danañ ko jàngale tasaare ko ci làkk bu mu mën a doon ku nangoo ko bañ nag nee na en particulier ci làkku tubaab ci làkku général Faidherbe bu mu fi ñëwoon dinu not tubaab yi seen bopp dégg ko di ko jàng te duñ ci mën dara duñ ci mën tus ci boobaa nan xam ni lu amoon jeex na léegi Sénégal moo moom boppam te yoon ba mu jël te yoon ba mu jël dana ko yëkkati dana ko yëkkati Sénégal su yëkkati ko dana yëkkati Afrique te bu yëkkati Afrique Afrique ci boppam mooy teg loxom ci àdduna bi su boobaa jàmm sutura ak xewal mooy am ci àdduna bi gëm na ko te mën na am te yaakaar na ni mën na am sunu maam yi sunu xalifa yi ñoom ñëpp ñu yéen la ni ñaan loo moom ngeen di liggéey te xam na ni yàlla du sànni seen ñaan yàlla du sànni seen liggéey fa lañ toll loolu la bëggoon wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu wax ji rafet na macha allah léegi nii rek wax nañ ni bi ñu bi président génnee ci fi nga xam ne mooy réew bi ba ñëw ñu toog fii ci la benn délégation ñëw tàbb si ci dëkk bi mais chance bi président am ci fekkee li nga xam ni macha allah moom lañ doon jébbali ci ay yi ñooñu amuñu ko muy délégation Sonko ak Khalifa Sall tàbb si nañ ci dëkk bi léegi te bi ñu ñëwee fekk nañ ñu dóor li ñuy dóor ba masi bi tas ñoom ñu doog a ñëw